di am contentement ak mbégte jàkkaarloo ak yéen ah tey journée bi nga xam ni nee naa la guddi gi nga xam ni nuit d'amour la ñu nekk ci bés bi nga xamante ni mooy mooy Saint-Valentin ku nekk ak sa Valentin ku ne xam na ni Saint-Valentin boo gisee li ma sol rouge noir kenn du la laaj lu xew ma ànd ceeg ah sama invité yu yaañ yi tey ma war leen présenté xale bu mën a way xale boo xamante ni nii àdduna bi yëpp ñu ngi koy ràññee waaye xale bi nga xamante ni nii mu ngi toj fépp avant mooy dugal kooku ma bàyyi sama xarit sama doomu ndey <laughs> sama xuloowaale mu mu ay ayca doom lay comme ni nga ko waxee asalaamaaleykum chers téléspectateurs yéen ñi nga xamante yéen a ngi suivre seen télé bu mag bi nekk ci TV tey nag ma kontaan ci bis bi parce que c'est un jour d'amour waaw ah, ku ne ku ne Saint-Valentin xam ne bisu bëggante la waaye li naan mbëggeel rond la ah, ku nekk boo amul koy bëgganteel ja sa yaay wala nga bëgg sa papa wala nga bëgg sa mag même sa xarit day day day joué nga xamante ne moom mooy ci bis bi kon di leen jaajëfal di leen wax ne nag ngeen préparé parce que tey comme ni ko sama doomu nday waxee ndaanaan lañ ndaanaan lañ invité tey mooy ki nga ni mooy xale bi yëngal bawal kon nag maas ñu bàyyi la kàddu gi. moo mu war a way ak mu war leen a wayal bégal leen ah def ambiance fii neex ñu bégg naa nuit la ñu wax Saint-Valentin ku nekk ak sa Valentin comme ni nga ko waxee doomu ndey ku nekk boo amul sax jabar nga bëggante sa gel boo amul sa gel sax nga mbëggeel nee naa la mbëggeel moo nekk loo xam ne toujours réalité lay doon toujours actualité lay doon dañoo tànn benn bés muy journée boo xam muy Saint-Valentin la 14 février moo tax ñu def nii ah nday ma bàyyi sama xarit sama doom nday nday mu nuyoo. salaamaaleykum. waaw di nuyu ñi fi toog ñëpp comme ni ñu ko waxee rek tey dafa nekk jour boo xamante ni jour Saint-Valentin te ku gis li ñu sol nga xam ni jour Saint-Valentin lañ nekk nag jour amoureuse boo amul ko amoureuse ante sa yaay ngi fi sa papa wala sa rakk say xarit amoureuse daal amoureux couple dafa yaatu torop ok eh, ndeysaan nee naa la ko nday nuyu na sama xarit ah nday nekk jigéen bu baax nga gis li mu def ah taaral bis bi ñëw bokk ak ñun li nga xam ne moom mooy plateau bi fii ci Siweul TV nee naa bu baax bi doomu nday tey kan nga indi dafa leer dafa leer doom day nee naa leen ku jàpp feneen pour mhm. leen euh, ah, man dama la bëggoon ma ma koy wax toujours beaucoup de talent talent bi dafa bëri ci moom xale la boo xamante ni li muy def daf ci ànd ak yar ak teggin xale la boo xam ni kilifa yi ci boppam sax dañu ko bëgg boo ne kilifa man nga ni euh, ni ñu koy waxatee politiciens yi man nga ni kilifa yi ah ñu bari kilifa dafa dafa dafa boole quoi ñu bari dañ ko bëgg bëgg ndax li muy def yar bi mu ci boole man li muy def bala ma leen koo présenté bala ma leen koo présenté doomu ndey man kii mënu ma ko présenté quoi. waaw comme niñ ko waxee tey nag dañu leen indil daanaan yéen ñii seetaan xam naa di ngeen pour xam daanaan bi kan la waaye nànk nànk ñu wan leen ñu jox leen ki nga xamante ne moom mooy naanaan bi mhm. kon nag pare leen tey amul amul seral mhm. bu kenn tëddi bu mhm. kenn di bu kenn bu kenn bu kenn maanaam bu kenn yëg ni sax yaa ngi toog tey jàppal ne tey xale bi ñu leen indil tey daf leen a war a bëggal mooy ki nga xamante ni mooy l' enfant chéri de bawal mooy xale bi nga xamante dafa toj bawal parce que ni dugg Dakar ah artiste yi waa Dakar pare leen xale bu baax xale bu mën a way xale bu gëm boppam xale bi nga xamante ne ñëpp ko sopp fii ci diwaan Bawal Bawal kooku mooy kan kooku moo di jiilu ndongolo kon na jiilu tey loo ñuy jox waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi siyaar baax euh, sama xarit yeeg sama fan si sama doomi nday ñi nga xamante ñi ngi bëggee jili ndongolo euh, dina siyaar nag ci bisu tey bi nga xamante mooy jean Valentin bisu mbëggeel la ku gis li ma def xam ne waa TV ñi ngi nii macha allah defal ma defal ma defal ma décoration bu rafet macha allah ku gis li xam amour dafa am solo euh, sama xarit Mass Comédie di sama doomi nday di sama xarit sama lépp Iwita Djily Ndongo Lo fii ci Siwe Siwe Siwe TV contane na ci yeen bu baax baax tay dal dama bëgg way ba sagar xeeñ di way bo fan ci yépp contane parce que mbeugël dafa am doole gis ki la bëgg te yalla tax jana daw ba dee ngir ñi la bañ aduna amu solo dama ne damay génn yeen fu baax ndax dama bëgg dama bëgg ngeen ni contane ndax aduna lool mo fi am solo nit ñi ñu contane seen xol di neex mas la nga bëgg mo yalla ko di damaa bëgg xam nga tey waaw waaw. leen mbëggil mbër la mu am doole fum la songu dalay daaneel bëgg naa la xale bi bëgg nga ma bu dul waxi noon seytaane waxul nëng Yak nay xalaatooñ baby si tem ay love you bébé bëgg naa la ñëw naa ci sa yaay di lu ñëw ci sa baay mu naan ma géwël nga am ñeño nga am lawbe nga amul ci mbëggeel waaw waaw yàlla moko def ci domi adam bu soxol baxé dil beugenté waaw waaw ba ma ko xolé eh eh waaw oh oh Baby, I love you. Je sama xol. macha allah mën na li muy te way li si gën a neex mooy day way tegu si temps. tegu si temps ak ak ak orchestre bi instrument bi te loolu moo ci am solo. musique dafa am base. musique dafa nekk loo xamante ni boo koy way bu jàpp ne yow da ngay way kese waaye bàyyil xel ci bàyyil xel ci ñi ngay déglu. Mm-hmm. bàyyi xel ci ñi lay déglu ba tax na duñ ko duñ ko def la du du ko jaajëfal di ko ñaanal ah fi mu bëgg a yegg yàlla yeggale ko fa xale bu am jom la macha allah xale bu mën lu muy def la xale bu am talent la kon di wax ne waa Bawol seen doom a ngi doog gunge leen ba tax yemuma gis nga gis nga mbëggeel yaay benn waay mas naa toog ak moom mu ne ma lu ci waay waay mu neex mais jili ni muy wayee mbëggeel si nga toog danga ko yëg man leer na ma ne ñi seetaan ci commentaire yi ñi ngi bëgg a dee nday loo wax première partie bi mu li mu way moom ku ko dégg moom xam ne egg na sa xol torop toujours ngay dund amour. toujours ngay dund amour xale bu am jooma ngi nii daal. ndeysaan xale boo xam ne ku ko jàppale mu dem. ku ko jàppale mu dem ku ko jàppale wut dina dem. aywa ndeysaan kon kon kon jiilee ngi noonu pap pap pap ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy amour tey nee naa la guddi gi ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy mbëggeel mbëggeel nekk na loo xamante ne nii ah mi fépp foo dem ci àdduna ñu ngi koy dund nee naa la mbëggeel international la kon pap mbëggeel. maam sëy yi nga xam ne gis nañ ko jamono ji ci mbëggeel ak la ñuy wax sëy yi nga xam ne gis nañ ko jamono ji moment bi mu nekk tey da ngay takk nit ki financé ci moom ay millions du ngeen dund trois mois ngeen tàggoo foofu mbëggeel la fa amul wala wala wala lan la quoi. waaw xam nga ñuy booy wax si mbëggeel ah, day nekk loo xamante ni ñëpp ci bokk yam amul ku ñu dund mbëggeel xarit dañuy dund mbëggeel parce que boo xol la rek te képp ko am xol yaa ngi dund mbëggeel kon nag tey bu fekkee da nga nekk jigéen ah, jigéen mën nañ ne garab la boo jëmbatee garab te roose woo ko amul njariñ yàgg yàgg day day dem ba la fa kon nag xool noonu lañ ko war a suuxatee te buñ nee mbëggeel rek nekkul cadre relation kese parce que sa digganteeg sa yaay amour la sa digganteeg sa rakk amour la même sa copain bi ngay àndal amour la foofu mbëggeel moo fay daw kon bu sincère rek dara dootu fa desati relation yu bari sooy gisee du yàgg maanaam euh, sincérité du dafay manqué de à cent pour cent parce que gis macha allah taay ko a bëgg a dugg si moom ah yaa ma gën a xam daal bëgg a dugg si moom relation bi du du yàgg mais mbëggeel la da bàyyi mu mu juge ci xol dellu ci xol parce que boo déggee ñu naan cofeel xam nga que suñu fii la mot de cofeel cofeel dafa nekk loo xamante ne tey da ngay toog en tant que góor jigéen romb la boo sentirul ci moom dara ba ko mu dem mais boo sentiree ci moom dara loolu mooy indi cofeel loolu mooy waral xam boo njëkk ñi naan xale bi cof na ma léegi nag loolu mu cof si yow da ngay dem këram nga seeti jigoon ne ko ah soxna si man kat li nga cof si man laa jël si mu ne la mooy lan mu ne ko ah dama da ngaa yëngal sama xol mu ne la may ma ma xalaat léegi may ma xalaat boobu danga koy bàyyi xelam ak xolam voilà mu xalaat moom bu gisee ne moom tey ji cofeel googu ngay wax si yow moom fekk si na ko rek da ni nekk loolu mooy vrai amour mais tey gars yu bari soo gisee relation yu bari di tabe mbëggeel du fa am intérêt moo fay moo tax du yàgg moo tax tey c'est un boo xamante ne c'est un jour spécial boo xamante ne dañ cee war a waxtaane li nga xamante ne moom mooy mbëggeel léegi euh, comme li mooy comme li nga wax sànq rek mbëggeel moom dafa arrondir ñëpp ko mën a dund sëyu maam sincérité bi la quoi moo des maam nit ki bu fekkee ko de vrai te te li ngay wax mu nekk dëggu ci yow comprendre nga boo dundee ak moom seen na trois mois mais nga jël xaalis bu financé ko di dund ah ay millions ngay financé ci jigéen du ngeen am sax quatre mois ngeen bàyyante pourquoi. loolu moom nekk eh. na affaire boo xamante si nii daf ñu jaaxal ndax da gis ko benn góor boo xamante si ni day benn jigéen daraage ko ñu nekk du mat sax un mois ñu bàyyante mu nekk affaire boo xamante si ni daf ñoo jaaxal te des fois da ngay gis relation yoo xamante si ni dañuy dund pendant trois ans quatre ans. su ma déggee sax mooy mooy mooy jigéen ñi xemmeem maam góor ñi xemmeem la duggee. ci jigéen daal góor ñi dañuy xemmeem. mais mais mais ñi ne am na jigéen ñoo xamante ne ñoom dañuy xemme hmm. parce que tamit. mais ma wax la benn benn affaire boo xam ne dëgguma la ah. gu maam maam jigéen du xemmeem ku yor pour muy leer. man na gis góor nga entraîné dagg bi baax mu xemmeem la comprendre nga ah, ah, mais xem xemmeem ku lekk sa xaalis génn ci yow non non jigéen du def loolu. non nañu ne amour léegi dafa amour am na valeur amatul valeur. Mm. parce que soo gisee ma ne la amour am na valeur amatul valeur léegi xale jigéen ñi dañuy xool maanaam ñu si ëpp la plupart euh, des jeunes filles mm. ñoom xoolatuñ bëgg te yàlla tax ñoom dañuy xool benn gentleman soit nga nekk benn sañsakat soit nga nekk benn jaayeen boo xamante da nga nekk ci salle nga nekk benn jaayeen boo xamante ne am nga dooley poos ñu dugg si yow mais un vrai amour loolu intérêt du ko lal mbëggeel li ma wax rek bu jugee si xol si xol la war a dellu loolu mooy loolu mooy li nga xamante ni moom mooy mbir mi kon nag euh, faute bi ñu ci ëpp jigéen ñi la jigéen ñi daal ñoo fi demee. et puis ba tey ba tey ba tey parewuma foofu. Mm. maa maa ngi xuus foofu toll. Mm. nga nga génnee mm. léegi jigéen ñi dama gis ay vidéo yu bari ñu koy dugal maanaam góor ñi takkatuñ góor ñi takkatuñ lan moo waral loolu. góor ñi takkatuñ dañuy ñëw ne la dinaa la takk promesse. léegi yow sept ans. sept après ñu dem xool bi beneen jigéen. pense que loolu lan moo koy indi dañ la xam ba pare. loolu moo koy indi mais foofu ñàkk fayda la parce que parce que nooy nekk ak nit ki mu lay xam ba pare. waa ñàkk fayda si benn côté am na jigéen ñoo xam ne dañoo ñàkk fayda xam nga ñun lu ñu dal ñoo teg suñu bopp mais nag lépp lu ñu dal góor ñee ñu ko teg parce que dañuy gis benn jigéen boo xamante si nii dafa mal honnête. li nga wax li nga wax yow sa bopp parce que da ñoom ñoo ñàkk fayda ñoom lañ maanaam ñoo ñàkk fayda dem ba pare ne dañoo bëgg maanaam dama bëgg xam ba xam jigéen ñi foofu noonu ba xam jigéen ñi dañoo bëggeel moo tax jigéen jël jël boppam di ko jox góor bëggeel moo tax wala wala ñàkk fayda la loolu ñàkk fayda la ndax jël sa bopp di ko jox góor xam nga loolu tamit ñàkk fayda la waaw mbëggeel dafa nekk loo xamante si ni dafa sensible en plus de ça amour dafa réciproque ku la bëgg da nga ko war a bëgg su ma la bëggee da nga may war a delloo bëgg bi ma la bëgg mais tamit man mënuma d'accord si benn côté góor ñi li ñuy maltraité jigéen ñi c'est mal daal da nga gis ni man foofu dama fay da nga gis ni góor ñi dañuy a defee pour jigéen ñi xam ne c'est intérêt moo tax a ñu da ngay gis góor goo xam day takk jabar ci kër gi li mu koy wax ak li mu koy wan bu xasee ba takk day mel ni moom yàlla ak yàlla. waaw foofu apparence lay doon. li ñu naan apparence c'est souvent tromperie. foofu la loolu lay nduru ndax kanam bi ñu lay wan ak li ne si biir c'est diamétralement opposé tey dañuy ñëw nekk ak yow wan la benn kanam boo xamante si nii nga naan góor gi dafa baax dafa ma bëgg daf ma yërëm tout ça après boo demee ba ngeen marié mu indi beneen kanam di la maltraité. non góor ñi la xam nga mbëggeel soo xasee xam nga baatu mbëggeel nit dañ koy utiliser mais xamuñu te signifie la moo de mbëggeel maanaam mbëggeel nit soo soo ko bëggee rek war nga koo mën a suturaal war nga koo mën a xam nga di ko muñal war nga koo mën a làqal li nga xamante ni moom mooy ay defam parce que tey jii nit ñi dañoo jàpp ne maanaam relation relation parce que buñ nee relation entre góor ak jigéen la vie de couple la yaa ngi dégg tey boo nekkee ak sa góor yaa ngi dégg nga bàyyi ñëpp bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi mhm. képp topp ko kooku tey jii pour man ah, lépp lu mu nekk yow war nga ko see mën a jàppale ah. bul xool lu mu am bul xool lu mu ñàkk parce que léegi la plupart des jeunes fii li ñuy dundoo mbëggeel mooy su neexee ma toog su naqaree ma daw mais foofu noonu tey jii ëllëg résultat résultat du la fa fekk parce que olof njaay def naan loo maanaam loo loo bayul doo ko góob tey ji da ngaa ñëw si kër gi tey benn un mois deux mois gis borom kër euh, comportement am nga ay kilifa avant nga dem sa kilifa toogal ak moom nga waxtaan ma ne ko ah man kat sëñ bi ah damaa gis ni kat vraiment jikko bii nii xaw ma ko woon si yow lan moo ko waral nga posé ko nga posé ko question bi waral lan moo tax mu changé mu ne la ah man kat li yëg lii ma changé mm. yaa ngi dégg nga ne ko su ma sañoon nga dundee nangam ak kooku tey ji boo ko waxee ko am xel rek dina revenir xam dina dina delluwaat ginnaaw. voilà voilà ne moom kat ah, ah, tey ji li mu nekkee du dëgg du mm. Pape ba nga daanelee parce que jigéen ñi léegi da ngay gis góor goo am jabar ah ci biir këram suuru Saint-Valentin jot mu bàyyi fa dem ànd ak beneen jigéen. waaw mais ñun góor ñi tamit kenn demul ñu des Pape. mais xam nga xam nga loolu noonu tey jii souvent lu koy waral non on se dit la vérité da takk xale bu ndaw yaa ngi dégg nga def lépp loo war a def si moom mu xëy wara a ne si kër gi ah, sangu timis jot mu war a sangu def tay bu baax wala mu def robam bu baax mais sërëb tiset la lay may yaa ngi dégg yow boo nekkee góor nekk ouvrier di liggéey xale yi ngay taseel ci mbedd bi ñu def seen mini jupe ñu def seen yi trois quarts yaa ngi dégg nga wàcc dem sa jabar def sërëb tiset est que boobu loolu dina neex yow nan ngay takkee jabar nga ni da nga ko bëgg rek ah nga ne da ko bëgg takk ko jouru Saint-Valentin jot ñu ne ñu la boo xamante nii dañ nga xam ne ñoom ñooy ñu bëggante mm. jouru Saint-Valentin jot ko jox même bu dul xaalis sax nga jëndal ko benn cadeau jox ko ko loolu day dundal xol am na ci góor ñoo xam ne tey duñ téye seen i doom duñ fob seen mm. na ci góor ñoo xamante nii nii tey seen yaay bu génnoon rek war a dem bitig ba baa leen seen seen doom duñ ko téye mais mbëggeel dafa nekk lu ñuy suuxaat mbëggeel garab la mais gis nga jigéen jigéen gis nga jigéen jigéen loo boo foo ko téye rek mu fay mu toog fa mm-hmm. man jigéen ñi la man anuma sax parce que man jigéen ak góor jigéen bi defal lu dul yoon dama naan ko jigéen gi defal lu dul yoon bu góor gi defal lu dul yoon dama naan xale bu góor bi defal lu dul yoon comprendre mm-hmm. mais gis nga jigéen mm-hmm. bi nga koy doxaan yow yow pap xam nga wax da ngay doxaan jigéen de carrément jigéen gi ne la mënuma bëgguma la quoi ci cadre maanaam suñ relation mënul nekk nga topp ko di ko wax kooku bëggu la woon mais dem ba dem na ba miin la daf lay bëgg kon jigéen du bëgg day miin ci biir miin googu noonu boo ko miinalee sa bopp toujours loo mënut mu am ci moom amul loo bëgg ci moom da nga koy am mais nañ teral jigéen ñi. mais loolu dëgg la jigéen ñi moom dañ leen a war a teral chaque jour dañ leen a war a teral mais nee naa leen war a teral képp koo bëgg mais tey li ma lay wax chaque jour rek jigéen ñi fi mu ne nii xaw ma léegi lu leen leen jàpp man chaque jour damay dal seen kaw parce que xam nga damay dal seen kaw moom ku baax jigéen moo la jur mais lu fi yàqu tamit jigéen moo ko yàq mais tey ji boo nekkee jigéen yam sa place xam yaay kan xam ki nga doon yaa ngi dégg nga yam fi nga fi nga war a yam yaakaar naa ni góor lu mu bandi bandi wala góor lu mu lu mu lu mu lu mu ñor lu mu ñor ñor ñor ñor ñor warulaa warulaa warulaa mën a détourner ba yàqale li nga xamante ne moom mooy sa aduna bu fekkente ne cadre sey cadre sey c'est autre chose parce que boo voilà da ngay may nday mu ñëw parce que hmm. nday li mu wax maanaam gis man man dama man dama gëm ni que problème bi am ci sey ñun ñun góor ñi la quoi waaw problème bi am ci sey yéen góor ñi la parce que da ngay takk xale bu ndaw fekk ko si pooju yaayam mu toog nga jël ko yóbbu ko sa kër génn di doxaan si mbedd mi di nekk ak yeneen jigéen te lay leer loolu daal c'est pas normal du tout da ngeen goo góor ñi da ngeen war a jox jigéen ñi cër waa te xam ne jigéen moo leen jur. moo jur bàyyi jur yaay waaw ñëw parce que parce nga wax na dëgg de parce que nga ñàkk jox jigéen cër mënul passé nga am sa jabar di doxaan boo waxee ñoom damaa bëgg ñaareel. comprendre nga ñaareel la ngay def farata ñu may la ko mais doo am sa jabar. waaw parce que bàyyi ko fa sur Saint-Valentin nga bàyyi nga bàyyi fa sa sa sa jabar dem di doxaan di ànd ak moom di couple loolu ñàkk fayda la. mais mais ñoom tey jii ñoom xale jigéen ñi tey bi est-ce que yéen tey ngi déglu seen conseil parents yi par rapport ak tey jii di leen góor parce que leen góor di wan yu ci bari yu ngeen di ñàkk manque de conseil la lan mooy lan moo tax yéen du ngeen déglu seen conseil seen conseil parents yi. si ñun ñu ngi déglu suñu conseil parents yi. Hmm. pourquoi pas ñun duñ moo dangereux daal dafa dangereux en de ça dafa lëndëm mm. yow tey dafa lay leer ni que da ngay gis benn jigéen boo xamante si nii dafa bon mm. nga ñëw ngeen dem auberge hôtel nga jël sambur ngeen nekk si biir mm. yow ko góor gi boo dikkee nga retourné sa xel ah, nga delloo si xale bu jigéen bi ah mu dellu fa mu nekkoon jëf ju bon jooju nga xamante si nii daf ko bëggoon a def daf koy bàyyi mais yéen tamit nag lu leen jigéen ñi war ngeen fekk ko si di ko si gën a poussé. mais loolu yéen ko bëgg parce que non mais nit ki bu bonee nit ki bu bonee dégg yow ñu ne ñu ne jigéen matul jigéen bu matoon ah du def loolu mais jigéen góor mën na ko orienté nu ko bëgg orienté yow jigéen matul tey bu ñu bëggee toj réew mi am na foo bëgg a dugg ah, jigéen matul eh eh, eh mais est ce que jigéen googu noonu noonu tey tey jigéen matul xam naa fi nga bëgg dugg de mais jigéen googu noonu ah. ba tey foofu jigéen matul parce que jigéen googu tëbul tëb rek am xel moom def loolu. non non xam nga loolu moom tey ñun du suñ loolu. du suñ loolu pexe góor moom mooy <laughs> euh. exemple. est-ce que tey jii ah. ah, dama koy jël présenté ko sama yaay sama hmm. parent hmm. mu ñëw toog su ko defee heure bu ko neex dafay ñëw toog mm. du ma taxaw ak moom si mbedd yi par ci par la rukk fi tabahi fi loolu c'est pas normal te en plus de ça du la respecté. ayca nee naa la nee naa la mbokk internet yi ñi ngi ñi ngi laaj ki nga xam ne moom mooy Djily Ndongo Lo mu ñëw yëngalaat kon jili bu ko defee nga may ñu deuxième partie ñu xoolaat ay waay jili jili di ma rey. ñu dugg ci deuxième sorte bi. waaw ma yi dafa neex bu bëgg ki la bëgg te yàlla tax sonn yaa sonal sa bopp yàlla dañoo wàcce rek ñu bëggante soppante te yàlla tax mbëggiloo mbër la moo xamante ni fu la songu dalay daaneen chéri boy I love bis bu la xaasaaraw buubu lu bis dem na ni beneen bi bëggante mbëggeel nañu bëggante mbëggeel nañu bëggante sama sokola yaay sama tempo salsa. Bima ma ko xoolee ci la xamee bi jaranama jaranama jaranama yi xanaa xamuloo ni yàlla moo bind jaam bañ lay ku ne li nga soko bañe da fek ngeen ci ñaw bu ma bul ma laaje man nga ma laaje ba laaje ma sama non mu yaq sama del sa xel ñaw xel moy nit akol, kol bu rafaté yalla man la la dimbali pop demba pop pop demba pop demba wax leen pop demba eh dem ba suma koy way sama xol fay neex sa yaay ba do baadoloon du yaay coma bu kat gi fane lek joona sa yaay xamul fane abo a bo tar yow tay ma lay wayal eh sigil ma lay seen nak la mu lay mas ko yole yole yole yole sa boss eh oh wa aso gi ni khaliba xaliba aso yomi yow mi may way fokuna la xasee volonté asu ñëw naay asooy asu doom ji yaayam dërëm ci baayam ceen du ko yërëm asu mi may wayal yaayam da ko xale bi intellectuel dafa jàng xam leçon ñaan naa yàlla nga dem ba dagg bag ba jili ndongolo ñëw di la feetal yee xale bee ma ñaaw bu buruus biraan doroteer bañi biraane biraano biraan dëgg dëgg mooy jàmbaar doroteer eey moor moor dëgg dëgg baay fa waay Mor. Serigne. way naa la. bàkk naa la. Serigne ji naa la. ku sa yaay gënoon yaayam tam ja yaa ko man. ba sa bay manoon baayam tam ja yaa ko man. Serigne ji lay wayal. bay fa baa ngi. salsa. ok. naa la ndeysaan ku gis limu way xamni xalé bi talent bi dafa nekk ci mom parce que li gëna jafé lay def muy nekk di way lo xamanteni day ñew sa xel nena la ki ki nga xam nga mom lañ ko tuddé muy jili nongolo xam nga mo diko imiter ba dem ba nga xamni fu mu yuxo ñu ne ki ndax nongolo mo yuux ni la daan wayé daawul xalaat daawul bind day lu ñew ci xelam rek lu mu xalaat rek lool lay way mais daawul bind kon nena la lip dafa jël lepp Wow wow Demba. waaw waaw waaw xam nga li ñu naan euh, bi daa wuyu borom. Mhm. la fi xam ne artiste la parce que ah. Ndongo Lo nekkul nag ñëpp ko ñëpp ko ñëpp ñëpp ñëpp a mën lim mën parce que ndongo lo artiste la boo xamante ne boo ko fëggoon xaaju guddi ne ko bëyal ma mu dóor la ak appela boo xamante ne macha allah fa tubarkalla te nee naa la su may xool jili sama xel day dem chaque jour ci ndongo lo rawatina may dégg baatam kon di ko ñaanal li nga xamante moom mooy gudd fan ak bonne continuation ak bonne réussite ah, parce que xale la ndaw la te mën na li def te gëm gëm na boppam foofu laay ñëwee sax fi nga mm-hmm. xam ne moom nga tuddee mm-hmm. a xuus ci question bi mm-hmm. ci waxtaan bi mu daal wa mas bama bama bama ma ba ma woowee ci ndongolo dama ciy wuju ba mu jeex ndax ndongolo mooy mooy mooy mooy mooy sama lépp mooy sama lépp fu ne di ki nga xamante ni tey boo diglu ay wayam boo yeewutoon ci àdduna mën ngaa yeewu parce que ay wayam day yeete day digle te moo ko waxoon way bu yeete wu diglu duy way te way na fi mbëggeel mbëggeel gi nga xamante tey moo tax ngeen dekkaru lafe li def ci ay kër ma ñëw sañ ci ànd ak moom mbëggeel wa wa looy moo may jooyloo ndongo lo mu sëriñ Fallou daan na way naan mbëggeel amul génn amul géwal yàlla mooy bi jaam mooy boole jaam ndongo loo daan way naan ba tey gis waaye du bëgg làmmiñ ay wax waaye du bëgg tànkay doo waaye du bëgg waawaaw noppay diglu waaye du bëgg mbëggeel fokk yàlla bind dafa sori lool xolay bëgg dama tëdd bëggu di nelaw nelaw munuma nelaw ndeke mbëggeel moo ne sama xol bi def ma feebar xale bi bi ma ko xoolee ci laa xamal ne ma gel war naa ñëw ci moom maas yaa ma doon wayloo ci ndongo loo mu Sëriñ Fallu mbëggeel waaw waaw waa ndeysaan ma la gën a kontaan te leer na ma ne ñuy seetaan seen xol mi ngi sedd parce que Lo dafay bàyyi ay œuvre yo xam kenn dootu ko fàtte bi nga yuuxoo rek dafa mel ni taxaw di yuuxu motax motax jili yalla la yalla la fa ciat ma bab demba waaw euh, man euh, tay dafa mom tay suma suma suma ron laccé lan mo waral nongolo parce que artiste yi bari nañ mais lan motax nga tamu jili ba fa tek ci nongolo waaw jili nongolo gi liko waral moy ko euh man reyuma ko ci ay wayam parce que nit doy roy nit bam jeex artiste deug deug do jël ben nit lak diko roy te leppam il faut nga indi sa yefi bop deug la sama voix sàcc naa ci voix quoi parce que yenn saa damay way sax nekk ci géew ñu ne ma yow de sa voix voix ndongo ma dugg way ci ñi nga xamante ni ñoom mooy gars yi baax yi fan mu Seydina Mohamed ak moom dane mooy ñaasu kanam loo sëlum sëlum du dañ so boo loolu tàmbalee nag boo ko ci duggee day tax nga jël Ndongo Lo rek euh, ko imité ba foo dem wala nga jël turu Ndongo Lo bi la jili Ndongo Lo lu indi loolu turu Ndongo Lo bi mooy dama dem ci xew yi di dem Touba Diourbel mbuur fu ne hmm. léegi nag damay way boo xamante ni ki yenn kilifa dana ma woo na ma yow yaay rakki ndongoloo bi ma ne ko rakki ndongoloo li kenn laa ci xamul maam Cheikh Niang maam Cheikh Niang sama xarit sama doomi day ñu ne ma ah ñu ne rakki ndongoloo bi parce que yow sa voix booy way comme ndongoloo hmm. may way bi boo ko tegee hmm. di way ci nga gën a déglu ndongoloo tege rajo bi nga xool ma teg rajo bi way ñëpp ñoo ne kii mooy rakki ndongoloo kii mooy rakki ndongoloo ji ndongoloo gi man jékkuma jekk rek taxaw daal ma jine ndongoloo laa tudd nit ñi fi ci Touba bu ne Touba Massa Ocass sama xarit yi nekk foofu. waa Massa Forod ak sama gaa yi nga xamante ñoo nekk foofu. Mm-hmm. ñoo dem ba dégg voix bi daanaka yow comme Ndongo daf ko jili Ndongo Lo. mais mais mais a xam euh, loo ñuy wax kan mooy waaw jili Ndongo mooy xale bi nga xamante ni Touba la juddoo yore Touba mm-hmm. maa ngi juddee Darou Manane Galas Dakar fa laa juddoo fa laa yoroo. looloo tax lépp loo wax rek boole ci Touba. waaw mm-hmm. Touba amul lu ko gën a rëy. ci sama àdduna. dëgg la euh, am na lu ma fiy def. loo xamante ni maa ngi ko fi doon def. sëñ bi nga xamante ni mooy Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na ko fi yàlla yàggal may koy kàttan te mooy suñu lépp mooy suñu tànk mooy suñu lépp mooy suñu wéeruwaay parce que wolof Njaay nee na ku amul wéeruwaay neexu ba max te mooy suñu wéeruwaay te dëkk bi dëkk bu Sëriñ Bàmba te moom am na loo xamante ni doon ko fi def neexu ko waaye léegi nit damay woo sax ci xew ne ma jiili soxalu ma tëgg soxalu ma dara damaa bëgg rek ma wàcc sama solo nga ne ma der yuux ma ci Sëriñ Bàmba di ma ci fay xaalis bu bari oh, kooku dama fay ñew mais tey jii jii en tant que artiste ak talent bi nga am nga nek xalé bo xamantene ma sha allah voix ba ngi fi inspiration bu ngi mais tay gi jii lan moy ci jafé jafé ci musique bi lan moy sa jafé jafé musique bi moy way mbapat la ni la mo nekké mbapat la way dekkee mbapat way dang koy mbapat parce que ndongulo dem na sumbu dem ngenté dem na fune man damay romb ay xar sax xar yu dajalo mo yéen way yéen sa ay nit ñi nga xamanteni dañ may xam na ma nga ñak fay non du ñak fay de gis nga àdduna fii gis naa fi artistes yoo xamante ni tey dañuy dëkk Louga wala Thiès wala beneen dëkk dem Dakar génn ci benn télé mu jili ndongo la doon xaritam ba muy nekk booy ma envoyé ko 4 messages du ko tontu. lan moo ko waral succès voilà ba tey ma ñëw foofu nga bokk ak ki nga xam ne moom mooy Thiat Seck nekk waykat boo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal maa ngi koy nuyu de passage mais Thiat Seck sa diggante ak moom nan la demee et ngeen bokk benn koñ parce que Thiat la dëkk mhm. Touba nga dëkk ngeen génn nga nekk Dakar di way moom mu nekk Dakar tamit di way seen diggante foofu nan nan la demee Thiat Seck yàlla dafa def na muy sama grand bu baax ñu bokk ni dikk ni ni seen fàllu yaayam bëgg fàllu doon sama yaay ñu bëgg lool caat bi mu ñëwee Mbacke Bawol boobu maa ngi fo ci bongo yi di fontu gars yi nii mu ñëw Mbacke tëgg fa benn soirée ba mu tëggee benn soirée gars yi ci boppam man ma ko woon waaye gars yi ñu ne ma saway yéega ci kaw siif caat jox la micro bi ma taxaw ci noppi caat na ko caat jox ma wooy mu jox ma mën a der xam nga loolu mus sa def ngaaka nga ci doon premier jour ma yëg ci seen te am na artistes yoo xamante ni tey tey tey boo dee xale boo xamante ni am nga déggukaay am nga talent nga fekk orchestre jàmbur ci ay nit laax de boo xuma artiste ñëpp nga fekk orchestre jamm ju ci deug yow bo duggé ñu dégg sa kàllaama ñu leer na yow mi bo wayé ñu né ay xalé bu goor ba lam fa way piano bi dana la suruxal wala guitar bi wala tadmat bi il faut ñu duggal la ben gam bo xamanteni nga surux yoy ci gaay ci gaay la nak ci gaay la ci indi la quoi am ño xamanteni mom lo way lu mi neex neex ñu gën lay deggal ngay gëna contane wa am ño xamanteni ne la di tabaxal cabaxal loo xamante duñ bëgg yow nga ci waara bi kon yaakaar naa ni xam nañ ki nga xamni mom moy jili ndongolo waaw Djily Ndongo loo nekk koo xamante ni nii xale la boo xamante ni mu ngi ci yoon Djily ñu bëgg a xam lan ngay préparé jamono ji lan mooy sa projet ci wàllu musique bi nga xam ne moom ngay def. li may préparé laal mooy def ndànk rek parce que àdduna boo nee ndànk boo defee ndànk rek loo bëgg sa àdduna man ko am àdduna kenn du ko parax parax kenn du ko yàkkamti parce que yàlla boo koy jaamu sax ndànk ngay def bu doo ko yàkkamti. voilà jamono ji nga xam ne dañoo nekk ci jamonoy ah, Covid 19 bi xam nga ak ni mu lëmbee jamono ji jili jili yow ñu bëgg xam ba xam yow jamono ji ñu toll yaa ngi préparation parce que xam nañ jamono ji ak Covid 19 bi xam nañ ni yow mënoo moment bi soirée amul nañ ndaje yooyu noonu mais est-ce que yaa ngi préparation wala ngay waaw man yàlla def na ma maa ngi toog sama néeg yenn saa ma génn Touba wala Diourbel doxantu maanaam di siifur parce que waykat man nga dee taxaw tribunal mais boo amul koo xam ne fi àtte ngay toog di jugé di xool. parce que xamalum don mu doon way yeete la da ngay tok tribunal gis ko xamal dañ koy até problème bo xamanteni yow li won nga ci benn bindante ci pour nga way ko ëlëk pour nit ku bàyyi ko xel bu ko don waji def mu bàyyi ko xel ne lii su ko defee dina ci am problème wax japp nañ ci nit yaa ngi dégg ba dem béréb bi béréb bi béréb bi nga xam dañ ci denc nit sax dang fay dem gis fa salte ko xamanteni dañuy jege nit diko yobbu ci bamélam nga koo xamante ni day xol poso maas ba xam téléphone nekk ci mu génn ko ci génn ko ci poso maas def ko ci posam comprendre nga nga xam koku kooku yalla yàlla kon kon jili jili maanaam dañu bëgg xam ba xam yow sa fans yi nga xam ñoom lay ñoo lay bëggee ba xam yaa ngi préparé son wala yaa ngi préparé album. waaw maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi am loo xamante ni maa ngi koy bëgg a def ci loo xamante ni moo ma jaaxal ji léegi maam ci mbëggeel léegi ci laa nekk mooy sëy yi nga xamante ni sëyu sëyu sinaab la quoi sëyu sinaab la xale jigéen ñi léegi sëyu sinaab bi mooy lan mooy ko comme si euh, li jigéen ñi def rek décoré seen lal toog laal sinaab nday faal gis ko wala awa awa awa njaay rek yii kii la lam lam sañ ca koroog lam def nangam ak nangam àgg gis copain ñëwul ñu ñaan copain bi di ñeenti benn 200000 àgg may ku njëkk ñu xotti ko ci 4 jasneer wala 3 euh, euh, jasneer sañ ca ko euh, fi mu toll nii xam la lan ma fi am. sëyub sinap. voilà moo tax yow ci sëyub sinap ci nga bëgg a ci nga bëgg bind texte. waaw pour liggéey ci daal. waaw ndeysaan dégg nga li wax Pape Demba. waaw waaw loolu am na solo loolu moo leen doyul parce que sëy yu bëri tey soo gisee suñu teewaay fii nekk bis nekk bisu mbëggeel nga ñëw fël foo xamante ne tey macha allah ku ko dégg sa xol sa xol dina sedd waaye tamit ku ko dégg di nga xamante ne daanaan piir moo doon way kon nag xanaa du ñu def la dul li yëg xuusandi ci li nga xamante ne moom moo nekkoon ah, sunu sunu sunu tam ah, ci sunu débat bi. Hmm? 壁をされられている方mën nga see volonté moom ndax am naa copain waaw am naa copain mais mais mais mais tey fu ndax mbëggeel moom surprise moo ko ak plaisir waaw Saint Valentin moom maa pare kado bu baax bu rafet boo xamante si nii su souvenir daal lay doon si moom waaw. Hmm. mais surprise bi def nga ko ba pare wala nga bëgg tey nga xam ni boo jugee fii rek dem jox ko ko wala surprise bi moom def nga ko. def naa ko ba pare c'est déjà préparé. Hmm. jugee fii dem jox ko ko. Ah, kon daal préparé nga surprise bi ba pare. préparé naa ko daal xam naa ne mi ngi lay seetaan mais mi ngi préparé. pour mom tamit ah li nek na si biir ndax ñepp ñu ngi seetaan Siweul TV yow wax nga sa cadeau ba paré wa jangé def mais li ne ci bir xamuñu ko ba mu ñu mu waaw wax dëgg de ba tay mu ñu ci pap pap yow nak yow am nga soxna wala pap yow pap yow da ngay bëggante comme gaay ni ñi dem parce que xalé yi xalé xalé yi jigen ni ñi top ñi xam ñom ñoy animateur yi wala ñi nga xam ni ñoy ñoy journaliste yi xam nga genre yoy dal bo tok ci média yi dal dañ lay bëgg est ce que pap yow ben gel nga am wala yaangi dund ki quoi sincérité question bu mom dama ci sawar Pape ku ko gis xam ni Pape daa nekk un jeune boo xamante ne dafa am yoon euh, yoon bu muy tracé di ñaan yàlla yegg si kon tey jii ah, am naa ko naa ko ah, muy muy ma maman chérie sama yaay di ko ñaanal ah, nga xamante ni macha allah mu juree ba léegi seeraan nañu wax dëgg neex yàlla mu nekk yaay ju neex neex a yaayoo. yow waxuma la moom laay bëgg man man man <laughs> ak fi mu nga taxaw fii bu pare. am nga koo nekkal Pape loolu mënul nekk. c'est impossible ak artiste. xale yi da wutali la TikTok bi ni nga koy def Pape. <laughs> non xam nga li nga wax la mais Saint-Valentin lañ wax euh. man sama sama la préféré à l'instant pour l'instant nii moom vraiment. mais amoo copain amoo amoo kii instant bi moom. amoo aw ma Valentine moom. amoo Valentine hmm. <laughs> <laughs> amoo ko Valentin quoi sa Valentine. non aw ma Valentine ah c'est ma mère waaw Valentin digal maa Valentin sax man. kooku kooku laay kooku laay fete li nga xamante ni moom mooy une bonne euh, fête euh, terrestre. Euh, bii nag ñoom ñoo waral xale yu jigéen di kaas ne góor ñi takkatuñ xoolal nag li fi nekk ci góor moom mu tax li fi nekk ci xale yu jigéen moom mu toog nekkut ak kenn. ndeysaan. saan nag question bu ñu jaa lu ñu jaaxal la. <laughs> war nañoo xam lu tax yow nekkuloo ak kenn. ak jour bi eh. damay wër damay wër xam nga da ngay damay wër damaa toll ci phase boo xamante ne phase wër laay def. Hmm. bis bu ma gisee. casting daal waaw merci beaucoup ma heure bi déwén incha allah day am day am mu ñëw toog fii bokk ak ñun plateau bi ah partagé ko ak ñun ay jërëjëf ñu du ñu dugal ki nga xam ne ñu dugal ki nga xam ne moom mooy ci Djily Ndongo loo mu dikk def li nga xamante ne ni moom mooy ah moom mooy dernier. tàggatoo waaw tàggatoo bi ñu tàggatoo rek xam nga ba déwénati ñun ñëpp ñu fekkee waat ko na comme comme plateau bi ni mu mel nii. waaw. <laughs> ay ca kon di am contentement ak mbégte ah di di di fekkee ak bis bi nga xamante ni nii di am contentement ak mbégte jàkkaarloo ak yéen ci bis bi nga xamante ni nii moom mooy Saint-Valentin ku nekk ak sa Valentin ah ñuy dund li nga xam ne moom mooy mbëggeel yanaa la mbëggeel toujours actualité lay doon mais toujours li nga xam ne moom mooy réalité ci ñi ko bëgg ci ñi ko xam koy dund nday lan ngay tàggatoo di content trop tamit partage bi nga partage plateau bi avec nous waaw franchement parler tay mom dama content sama xol dafa fess dal ba ba ma wax dal en plus de ça ma ngi nuyu sama yaay bu baax ah di nuyu sama papa sama xarit ak ma ngi nuyu sama xarit nak tima ku ma bëgg nak ku sori ci man danga ma koy jox man mi amu valante non kooku am na borom ah. waaw ndeysaan <laughs> ndeysaan nee naa ah Pape Demba ndeysaan sama xarit ndeysaan maag moom nee naa la tarkala macha allah euh, dugub ak ñebe lañ ci àll ba lañ àndee ba fii ndeysaan nit ku baax xale boo xamante ni man li muy def bu waxee rek nga xam ne yar ci discipline toujours ki li muy def da koy teg li def da koy teg ci yoon Pape dan ngay tàggatoo. waaw xanaa di di bokk ak ñun li nga xamante ni moom mooy plateau bi waaye tamit di nuyu sama artiste bu mag bi nekk Jili Ndongolo macha allah tey kontaan nañ bégal nañu lool ah, jox nañu li ñu soxla woon tey ci bis bi mooy wéyal nañu mbëggeel waaye wéyal nañu li nga xamante moom mooy un vrai amour li may tàggatoo nag lenn la comme li may wax rek ma Valentine c'est ma mère chaque jour du ma taay di ko wax sama yaay mooy ki nga xamante ne tey moom laay souhaité une très bonne fête Saint-Valentin ah, di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ah, di remercier ñi nga xamante ni ah, ñoom ñooy équipe technique bi ñu doon réaliser li nga xamante ni moom mooy émission bi di jaajëfal ñëpp di leen jox dig di leen jox rendez-vous incha bu mag boobu nga xamante ni moom mooy moom mooy def li nga xam ne moom jotaayu ndaw ñi ah bi di ko xaar foofu nga xamante ni ah mm. li nga xamante mm. kañ lay doon incha allah mardi lay doon à 18h. kon na ko ñëpp xaar ni lay doon nee naa di am contentement ak mbégte jàkkaarloo ak yéen ah ci sama plateau bi nga xamante ni mooy spécial saint ñu am ñu doon ci ànd ak sama ñaar yi invité yi ak ki nga xam ne moom mooy Djily Ndongolo moom moo leen doon wayal ah di leen bégal bala maa tëj tamit damay nuyu ñi nga xamante ni ñoom tamit ñoom ñu ngi dund amour ku ci mel ni Xaadim Dieye maa ngi koy nuyu di nuyu tamit ah, soxnaam madame Dieye ah ki nga xamante ni tamit ah maa ngi koy nuyu waaw madame Tall nee naa la ah maa ngi lay nuyu yow da ngaa baax ndeysaan kenn yow ba pare tamit di jàll di nuyu ki nga xamante ni moom mooy nday ami séeri bàyyi Dioum ah waaye tamit ñaareel la xaritu jëkkëram di nuyu tamit aaw buru këram Penda Aan maa ngi koy bëggee bu baax a baax ah Khoudia Omar ah, moom mooy defar njaganaay yu rafet yi maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee ñëpp Adama Soumaré maa ngi lay bëggee ah di nuyu madame Soumaré ñëpp sama yaay Jaara Dioum maa ngi lay nuyu yaay booy ah di nuyu tamit sa Valentin Sidi Thiam ah kenn yow ma rafet papa way ay ca di kontaan trop trop trop ci ki nga xamni mom moy mooy Djily mo len don wayal way yu neex yi nga xamanteni ni ci walu amour la ah jili, ñu bàyyi la nga tagato ya tamit wa jërëjëf Mass kontaan naa bu baax baax di bëgg ci yow bu baax baax euh, di anda ak yow kontaange di wax na tay la jour Saint Valentin ngeen dalal Djily Ndongo di gërem baax sama yaay mi ma tété won ma yoon bama xam bama xam ràññee mana tahu taxaw di way nit ñaam li ngay way dafa neex man jàpp naa ne mënumaa way man dama jàpp ne nit ñay wax seen wax rek gaa jàpp naa mënumaa way parce que aduna soo debee sixi siksi bis boo ko debee yàqule parce que ndongolo daana way ku naagu daagu ku daagu ñu romb la nit wuro gi sixi yaay maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak Serigne Touba yalla ma yàlla may ma yóbbale màkkatal mu ko la ma ngi siyaare Seydina Mouhamed di gërëm kenn ci samay nit muy badu borom sikam bau maanaam muy sama mag di sama manager di sama xarit sama lépp Aliou Fëgg Jaay mi nga xamante ni moo nekk si Kambaaw di solal xale yu jigéen ñi di sañcal xale yu jigéen ñi moo Gueye Ousmane Khadim a ah, maa ngi nuy waa kër gépp ku lim da ngay juum di bëgge waa si Kambaaw képp ku fa yeewoo rek maa ngi lay siyaare di la bëgge di ñaanal ki nga xamante ni mooy Omar Omar bi nga xamante ni ginnaaw yàlla tey su ma njëkkee taxaw studio moo génne xaalisam ci poosam dem fayal ma studio ma di way lu neex ba tey nit ñi dégg son bi nga xamante def naa ko ci amour nit ñi di ko dégg di ko bàyyee xel maa ngi leen di siyaar taaliba Baye Niass boobu maa ngi lay bëgg di la siyaar kontaan naa daal tey suru Saint-Valentin bi di ñaan nag balaa déwén man yàlla naa takk soxna man fu mu doon jabar rek laa bëgg bëgguma leneen lu du jabar dëkk bi daa métti te damaa sonn waaw fu mu toll nii nag moom leneen loo xamante ni ma ngeen ma ko ñaanal lu dul jabar ñaanal ngeen ma loo xamante ni kasaara ne. Mass yow ba ma woowee ci ndongoloo dama ba mu jeex. te damaa bëgg li nga xamante ni maa ngi koy wàcc ma ci. maa la bëggee man de bëgg naa la waaw maa la bëggee bëgg naa la chéri bëgg naa. commissaire la yow laa bëgg yow laa miin Sidi jàllal nga ma ku ci nopp sa booy dee ko woowee daddy eh bébé I love you mbëggeel ci xol la may gaañ Sidi maa la aimé laa caaxaan kon mbëggeel dina ma yoole yoole mbëggeel dina ma yoole yoole mbëggeel dina ma yoole yoole mbëggeel loo yow yaay sama champion xanaa xamul loo ne laaj ma lan mooy champion dëkkee daal doo champion kii jàpp tawa bàyyi koo kuy champion kuy dëkkee daal kooku la champion kuy jàpp tawa bàyyi koo kuy champion bu ma bëggee bu ma xeex même nag ma bëggal fii dal ci man yenn saa yi nga naan ma papa ma naan la bébé I love you yow laa nopp tey la Saint Valentin ku nekk ak ki ngay valante ku nekk ak waay ku nekk ak ki ngay volontaire volontaire ooy siiri jaral nga ma volontaire ooy volontaire ooy xale bi man dama ko bëggul lool loof lool sama xol bi yaa ne ci tem I love you ki nga bëgg ma bëgg la ki nga bëgg ma bëgg la bul déglu waxi noonu seytaane waxu dëgg yàq nay xalaat nit a ngi lay reetaan ba bu reetu boolal bul doon ay pexe ñoom ànd yeef bay neex tey la see balante ñu war a bëggante yaa ngi nii uyoo mbëggeel mbëggeel mbëggeel mbëggeel mbëggeel mbëggeel e bi jaaral na ma man jaaral bi jaaral na ma e jaaral jaaral nga ma jaay sama kër jox la